nuy di leen ziar di leen jox seen waat wàccuwaay rek di leen tatagal lu bari di leen wax ne leen kontaan naa torop mënuma sax wax barki yonent bi ndax dama kontaan parce que dama woote ngeen wuy si ma ndax tey su leen neexoon su ma wootee du ngeen génn wuy si ma waaye nag nit doo tagg boppam ndax ci koñ bi fi laa juddoo fi laa yaroo mais yaakaar naa ni defuma fi loo xamante ne nii war naa mën a tax tey su ma wootee waa koñ bi duñu génn wuyu ma may sant yàlla bu baax nag di sant ci samay ñaari waajur bu loolu weesoo may sant sama leader Mor Diouf moom mi nga xam ne moom moo ma jàppale moom mi nga xam ne moo ma dooleel moom mi xam ne moo tax tey ba képp fépp fu ñu may dégg tey yàlla moom la barki yonent bi ndax dafa nekk sama nijaay bëgg ma gis ma nag may nekk gaaraat di daan sama doole di dundee ñaq tedd mu ne ma njéeme damaa bëgg nga ñaw ñu liggéey ndax yow ku la xool xam ne kat nga boobu dama doon politique sax mais boobu fonnu ma ci lool fonnu ma ci lool te soriw ma ci lool waaye ba ma xamee ni li muy wax dëgg la ci moom ma ñëw ànd ak moom ndax man nag sama rakk ji nga xam ne moom laa bokkal ndey ak baay moom mi ngi caaroy di politique nag di ànd ak PDS tey boo demee caaroy géej moo fa nekkoon premier adjoint au maire kon man yaakaar naa ne tey su ma politique ma yoon bi fi ma war a jaar rek laa jaar ma kontaan loolu nag may sant nag sama waa koñ di leen gërëm sama tante yaa ngi nii sama séeri yaa ngi nii di sant sama waa kër nijaay ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di sant ñëpp nag tay nag koñ bi daa feesoon dell di remercier waat monsieur Danfaxa tey jii ku nekk xam na ni njéeme fii feesoon na dell parce que ci koñu njéeme la ñu ñëw monsieur le commissaire mais dafa am ñeneen ñoo xamante ni yeneen zone la ñu dëkk puisque tey mooy date de bi ñu wàll si daal di boole def ko benn te kenn ku si nekk nag indi woon nga sa ay nitu bopp su si loolu gisee Pape Saïd Diaw mi ngi dëkk euh, Grand Thiès zone boobu la nekk nga ñëw tonton Fadiga mi ngi nii toog présent secteur moo ngi nii Somme la dëkk ak euh, ta saw mi ngi nële moom mi ngi dëkk Mbourkat booy dem ci côté péage bi njéeme say moo nekk nii moom moo xewle woon tey Mbène Ndiaye mi ngi nee gis nga sedd bi jàpp na leen ji leen baaluwaat ak ñoom wa ñoo dëkk ci côté garage bi ay nitu tonton Mor la yàgg nañu ak moom ñoom ñëpp nag kenn ku si nekk nee nga doo bàyyi ginnaaw mama Samake mi ngi dëkk Mbour 3 moom tam monte na ak euh, Fatou Sarr Koli mama Rokhaya Diop moom icône la ci parti bi ndax bañ fii nekk xëy na man existé wu ma sax fi la ñu bokk fi lañ leen fekk xëy na fekke woon nañu vente des cartes yu njëkk ya njëkk ya moom ak Myriam Fofana ak taa Sofi Alawo moom tamit mu ngi nii waa ci école yu yàgg yi ci parti bi ci la ñu nekk ak ki nga xamante ni mooy Fatima Dondion mi ngi dëkk ci Thiès noonu route nationale bi amoon avant péage bi di am boo gisee lii nag ñoom ñëpp dañu yàgg di ànd ak moor Diouf vente des cartes bi am ku ne am nga la nga sekk ak moom moo tax ñoom ñu préféré am secteur comme ñëpp ndax nag Karim moo ko ñor politique bu leer lay def politique bu set lay def bañ nañ ko ba cees ku koy tooñ ci Karim nga koy tooñee mu ànd ci nag ak gëm-gëm ba nga xamante ni ragalu ci dawu ci hésité def ci moyen om fu ko PDS soxlaa ci lay nekk tey instant bii ma nga nekk Tamba di def rôle commissaire comme yow mais ci suba ba léegi ak démb may ñu jàmm ak faamam yi daajatu tonton ma ngoone ñoo ngi nii nelawuñu ba biir set ak ñoom faatu lépp rek pour parti bi tey nag man maa ngi leen di remercier yéen ñi nga xamante ni yéen a volontaire ni da ngeen a yëg jaayum carte da ngeen di defari secteur ànd ak moom liggéey ndax Karim dellu si ndax nag Karim il faut mu dellu si il faut mu dellu si man damay enregistré jékki-jékki gis ñoo xamante ni ay 1948 ay magum jëm soo tuddee Karim seen xol sedd ñu ni la Ablaye Wade la ñu bëgg buñ ko gisee buñ ko gisul moom lañuy ñuy daasal fanaanal loolu rek dafa sedd xol. kon yan nañu yàlla may ci barke Seydina Mohamed ñu dem ba Karim dellusi si fi mu war a dellu ñu am li ñu war a am taxawaat taxawaay bi ñu war a taxawu commissaire Danfakha ñoo ngi lay remercier bu baax man la Mamadou Danfakha di commissaire politique. fii si Thiès ouest est ak nord fas yéene ñëw leeral tuuti rek mais balaa loolu di leen baalu àq bu baax man moom du ma ne sax baal naa leen àq ndax loolu moom forcé la mais dama leen di baalu àq ndax depuis 5 heures depuis 17 heures yéen a ngi fi te vraiment damaa doon koo xam ne tamit am naa kersa sa jël micro di wax ak yéen ndax booba léegi. depuis 16 heures maa ngi biir Thiès fu nekk lañ may xëcc su ma fi jógee léegi maa ngi war a dem Medina Fall su ma fa jógee dem Jaxaaw te ñooñu tamit depuis 16 heures ñu ngi toog di xaar moo tax fu ma dem damay naa du ma fa def 5 minutes ngeen jéggal ma rek waruma fee yàgg ndax sama liggéey mooy liggéey commissaire ñëw saytu xool ndax carte yi ni ñu ko jaayee jaar na yoon xool ndax fiche yi remplir nañ ko xool ndax également am na bureau loolu bu ma ñëwee boobu léegi maa ngi siy waxtaan ak. Euh, responsable yow fi fekk du ma leen lim ndax euh, macha allah karkar macha allah gis naa seen seen fiche secteurs yi yëpp matal nañ ko jox nañ ma onze secteur fii si Thiès Ouest defe naa montage yooyu montage yu am solo la ndax fi ma jógee tamit waaw loolu day wane rek parti bi mu ngi dund te nit ñaa ngi ñëw di bindu tamit di inscrire di jënd carte de membre loolu lu am solo la loolu tamit di si sant di si sant responsable ñu fekk yoo xam ne ñooy dem di jëli nit ñi di wuti nit ñi di wuti sympathisants yi proposer leen ñu doon ay militants PDS ndax ñun lii day tax suñu candidat Karim Meïssa Wade su ñëwee ñu yombalal ko liggéey bi incha allah donc kàddu yooyu rek laa amoon pour wax ne ñëw naa fi Thiès Ouest ànd ak responsable yi. vérifier seen carte yi de yi ak seen fiche yi ñu jox ma lu toll ak onze secteurs fii ci Thiès Ouest di leen di gërëm bu baax di leen jaajëfal jërë ngeen jëf.